nag fi ñu jëm moom mooy seeti ki nga xam ne mooy expert ci parole ak comportement éthique ak déontologie expert mu ngi leeral Macky Sall ndax dañ ko war a kole wax waxaat war a waruñu ko kole wax waxaat expert démb firi na tey day leeral li nga xam ne mooy tenir parole parole politique war a promesse ban moo ci war a am expert. mënu yegg eh, seen jërëjëf jërëjëf eh, eh, Sénégal ngi nii Sénégal ngi nii Sénégal moo nekk nii Sénégal moo nekk nii ni nag di nga dessiné ñu xoolee ko la yaakaar na leneen mais Sénégal moo nekk nii léegi Sénégal am na benn président bu fi musa nekk nekk mooy président Senghor Senghor liñ ko falee fédération Mali ci boppam ak li nga xam ne moom mooy fédération bi nekkoon ci euh, euh, diggante Sénégal ak Mali ba ñu def ko assemblée daal di koy fal kooku passé Abdou Diouf li ko fal mooy décret bi ngeen xam ne mooy décret 35 article 35 moo ko fal maanaam du élection Senghor de dem jox ko mu toog waaye Abdoulaye Wade xam ngeen ne pourcentage am eggul 65 pour cent le président de la république bi nga xam ne moo ëpp taux suffrage bi nga xam ne moo gën a kawe c'est le président Macky Sall avec 65 pour cent kon mooy ki nga xam ne suffrage am moo gën a fort ci élection yi fi jot a jaar yëpp waaye boo nekkee ci campagne. nga joxe sa parole yàlla def parole boobu nga doon wax ñu fal la dafa am tenir parole maanaam sàmm sa kàddu waaye kàddu googu dafa am institution boo xam ne day taxaw di la saytu ndax li nga bëgg ak moom li mu bëgg ànd nañu bu fekkee ne yow mii da nga laaj kii ndax yow li ma bëgg yaa ma ciy jox autorisation mais bul fàtte ne yow askan moo la fal te askan falul kii yow yaay fal kii kon kii tax nga fal kii war naa tax nga sàmm ki tax nga mën a fal kii yow benn nit cundum yaa fal juróomi nit mais fukki million ak ñeenti nit ñoo la fal pour nga mën a fal kii kon juróomi nit yi tax juróomi nit yi nga xam ne ñoo tax nga bëgg delluwaat ci sa kàddu bi nga sàmmoon da ngaa fàtte ne fukki million nit ak ñeenti quatorze million ñoo tax nga toog fii ndax wax ja nga waxoon ca nañu jàpp. 65 pour cent yi ma leen wax soo gisee ma génne ko dama leen bëgg xamal ne fi président amee ba tey amul benn président bu sa am 65 pour cent. kon Macky Sall jàppal ne sa cinq pour cent sa trent cinq pour cent mën na nekk sa ay électeurs militants. sa 20 pour cent mun na nekk coalition bi nga xam ne ñoo ñëw deuxième tour topp la mu nekk cinq mais li ko yóbbu cinq yooyu nga mën a tax nga toog mooy ñi nga xam ne kàddu bi nga wax moo tax ñu voté la da nga waxoon ne 5 ans ngay def ñooñu bu leen xeeb parce que boo leen xeebee kon deuxième tour du am yàgg Ablaye Wade tolloo. ki la may baat nga dugg ci teen mu sànni la baat nga jàpp baax bi ba yéeg. mooy 15 pour cent yi récolte fii ba nga am 60 pour cent 50 pour 65 pour cent bu leen xeet ñooñu mooy ñi tax nga toog parce que ñoo dégg nga ne 5 ans ñu gëm la et attention président Macky Sall référendum bi muy wax le 20 mars bu ko defee te mandat bi continuer bu toogaatee mën na def yeneen ñaari mandat yu bokkul ak mandat bi muy ñett way ah way ah mën na def ñetti mandat parce que bii dafa nekk en cours bu ñu demee ci référendum mu d'accord ne pour cinq ans yi boobu dañ koy compter bii duñ ko compter à partir de boobu lay soog a nekk président pour cinq ans loolu dafa am solo pour sénégalais yi xam ko mais le président Macky Sall c'est pas trop tard pour mu delluwaat ci kàddu ma ah. eh oui parce que comme que àdduna bi ñu ngi commencer di ŋàññ di commencer di wax fu ne di fa jóge ñi koy défendre dañu war a am argument xam nga problème bi fan la nekk le problème se trouve ci taux de participation gis nga waa APR ak opposition bi combat bi ñu war a mënee mooy ñu fexe APR fexe ba ñiy participer ëpp parce que ñiy participer pour voter bu ñu ëppee ba wii bi daa dee am wara non bi daa dee am ñi am wii bu fekkee ne président Macky Sall cinq ans yooyu daf ko bëgg def mu am wii bu bëri loolu da koy may ndëgër laay ci institution bi mu toog wane na carrément moom incha allah dafay dem mais bu fekkee ne non bi moo ëpp ah dana yëg ne wax dëgg yàlla am na lu wàññeeku ci li nga xam ne moom mooy yëg-yëgu population bi kon combat bi du day ay plateau du toog ci plateau di xasante di werante combat bi nekkul foofu combat bi mooy APR nañu sol seen dàll commencé def campagne pour fexe la président am oui opposition bi nañu def campagne pour président am non kii ëpp li ngay politique yaay gagné kon combat bi foofu la waaye nag cooli mooy ndax wax waxeet la war a du wax waxeet le président Macky Sall ak président ab Ablaye Wade ñaari kaa la ab Ablaye dafa waxoon ne maa waxoon moo ko waxoon kon il la pris les responsabilités waxal ko boppam kenn laaju ko moo jékki-jékki ne maa waxoon te politique ñaari tur benn tur la am sant njuut ak mbas politique mbas la tudd sant njuuy maanaam wax mbas gaa yi njuut waaye école sàkku xam-xam pour def politique fa ngay jaar pour mun a def njuut ak mbas boo amul xam-xam boobu doo dem waaye nañu jàpp ne le président Macky Sall moom ci boppam ab lay wàdd moo toogoon ne maa waxoon ba mu leer Macky Sall wax ne maa wax fii damay wàññi demaat beneen dëkk ne damay wàññi waxaat fee kon dafa wax waxaat waxati waxeet est-ce que da ngeen wax ci Macky Sall dafa taxaw ne day wàññi mandat kon dafa wax dem ci beneen dëkk waxaat demaat feneen waxaat ñetti wax yépp mu waxeet ko kon léegi lan la maa waxoon maa waxoon maa waxoon moo waxoon moo waxoon fu mu waxee fu mu waxee moo waxoon fu mu waxee fu mu waxee moo waxoon dellu waxaat dellu waxaat boole waxi ne waxet est-ce que dégg ngeen ma dama ne président fii la waxee dem fee wax fa ñëwaat fii wax fi wax fii wax fii wax fii fii la waxee dellu fii wax fa ñëwaat fii wax fa waxaat fële fii nga xam ne fa la mujjee wax dafa boole wax bii ak bii ak fii waxeet fa kon moo waxoon déedéet moo waxoon. waxaat waxaat. waxaat ne waxeet. moo waxoon waxeet. moo waxoon waxaat. waxaat. waxaat waxeet. moo waxoon waxaat. waxaat waxeet.